sëriñ Cheikh euh, baax a Dolli ñi ngi lay siyaar baax a baax sëñ bi nga ñëw ci ubbite gi tey depuis boobu ba léegi yaa ngi ci waaye naka nga gisee ubbite gi. jërëjëf euh, Cheikh bi ñu ngi leen di nuyu euh, ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey rawatina ci Masaalikul Jinaan bi di xamal ne li jëf ji ku ko gis xam ne jëful Cheikh Xadim la jëf ji ku ko gis xam ne kin ko jëfal am na payug suñu borom. jëf ji ku ko gis jëf la joo xam ne ni tey l'islam am na ndam ci Sénégal tey de mën nanoo jàpp ne lépp loo xam ne ni mag ñi ñu ko doon déggee rawatina na seexul xadim tey jii mën nanoo wax na ndamul l'islam la ndamul mag ñi ñëpp la kon loolu tey moo waral sunu jetaay depuis fan yëpp ñu ne fi ànd ko ak euh, Serigne Makiyu fay ak ñi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi te xam ne ñoom ci seen jëmmi boppam ci seen lim jàngat ma noonoo wax ne la ma waxoon ko barki démb fii nee naa ko jëf ji ku ko gis ku ko def ku ne mën na noo jàpp ne sa aj yaa ngi yaa ngi dund ba pare sa àjjana taxaw kon tey fii ba junni at lu fi nit ñaan rek da nga ca mën a am ca yool ba kon loolu mooy li nga xam ne gis nañ ko fi muy liggéey boo xam ne bu am solo la

bu homme politique bi wala homme de religion bi comme ci mën a doon mën nanoo jàpp ne réew mi ñun ñoo ko bokk mën nanoo jàpp ne ñëpp war noo mën a joxante loxo ànd xam ne ay julli lan xam ne ñun ci suñu jëm boppam réew mi mënuñu koo xar ñaar lu dul ñun ñëpp ñoo ko bokk kon loolu it la moo xam ne nii tey eh, ci histoire it beneen eh, image la boo xam ne ci histoire àdduna lu am solo la waaye beneen eh, image la boo xam ne jàpp nañ ne jàmm dana gën a sax ci réew mi ngir liggéey bu mag bii di liggéey bu lislaam di liggéey bu sax xarit monsieur Macky Sall ak monsieur xam mooy Abdoulaye Wade mën nañ dama ne lii dafa doy buntu la ci caabi la ci lépp maanaam guy Masaalikal janaan tey ci jullit yi tey ci homme de politique li lii ñoom ñëpp bu ñu fa dajee ab message la boo xam ne ni naa ne kenn ku ci ne ci ñoom bu demee bu ko yóbbaalee jàmm dana mën a nekk ci ab xolam ci bu jàmm nekk ci ab xolam ma doon wax ne Sénégal moo am ndam kon suba moom lu ne mën naa xew foofu rek laa ci yam bëgguma cee sori wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala